bokk ci réew mi am ci baat hmm. assemblée li fay xew fan yi boo leen doon dénk ñoom ñi nga xam ne ñooñu fa toogal ci pencu ndaw réew mi nga gis ni ñuy doxale waaw xew naa ci am gàcce tuuti nag xew naa ci am gàcce tuuti bi mu koy seetaan ndax damay wax ni xam nga àdduna bu la ay nit jële wala la wóolu fal la kooku baat ya nga fa toogee dafa rëy toogoo fa yow rek léegi nag comme da nga fa toogee nit koo xam ne nit ki ni kii teey na kii baax na kii yiw na kii def na jàppal ni bépp baat boo xam ne képp ku la voté ak rek la la jox ndax nit ki bala nga koy voté da ngay am ci moom jikkoo xam ne kii doy na ma nga votel ko mm-hmm. kon sa jikkoo nga xool ci moom ba doy ko léegi nag boo tax déception mm-hmm. defante dama dem ba dama rus parce que li ma tax ma rus mooy tey ñun fa nga xam ne fa la yaakaar foofu la ñu doyloo ba gis fa yeneen it après da tiit ci réew mi daal ci lan lan war a taxawee ndax ndaw ñi euh, askan wi laay wax sax ñoo leen doyloo ba teg leen. man damaa gëm nit ki lépp lu mu mën a faj war na koo mën a faj ci yar ak teggin yar ak teggin lépp lu mu la mayul du la ko xañ gis nga assemblée loolu ñu def yëpp baax na de waaye li gënoon nit ki mën nga koo wax kàddu yoo xam ne tey kenn du ko dégg xeeb la te moom ñu ngi koy wax dina xam ni dëgg nga koo wax doon na ko gëm ko mais tey am na jox boo ko defee yow da dem ba lii lay tiitloo nga xam ne yaa leen fa teg. ngir lii par exemple ñu toogal la fa yor baatu askan bi mais baatu askan nag du xeex ak xuloo sëñ bi baatu askan kay réew mi jàmm lañ fi soxla ak dal ak teey léegi nag comme foofu la ñu war a voté yooyu yëpp ñoom ñoo jaadu ñu xoolaat seen jikko xoolaat seen bopp xam ne nii luy jeex lay doon kenn ku ci nekk nag nga xool sa diggante ak sa borom nga xam ne tey lépp loo xam ne def nga fa ëllëg yàlla dina la laaj lu tax bu kenn nit tax ngay def loo xam ne wóor na def nga ko te fa ngay tëdd kooku du loo fa fekk. Mm-hmm. loolu daal laa am lu ma leen ci wax. souvent Abdoulaye euh, ñu gis yenn saa yi ñu dal ci kawam ci internet bi. tey dañoo màggal tey dañoo màggal si gis mu tontu. <laughs> déedéet tey xool. lu <laughs> mu wax ci daal day bàyyi mu jàll. tey <laughs> bàggal si. waaw ziyaari suñ tubaab xam nga xam nga dafa am loo xam ni eh, xoolal xoolal bul déglu bul déglu si dafa dafa am loo xam ni ñun dañoo ñëw màggal si tey ziyaari suñ tubaab eh. tey di ci dàq mooy comme dañoo ñëw pour ziyaar si waaw nañ ziyaar rek ñu ut si yiw xalaat dañu ut si yiw nag di tontu ci di ci biti waaw mooy ay jàppal ni la Serigne Saliou Mbacke waxoon nee na bu dee lu luñ la waxal nga tontu bis dina jot ñu waxal la tontu woo mu ni béere tontu woon na kon bii moo ko def Sénégal nag kàmm la bu dee luñ nga tontu. dëkk de moo du ma tontu kenn te nag giñal naa la ci alxuraan képp ku ma wax it baal naa la man loolu laa gëm parce que nag li li li li waa wax ñaar moo ci am gis nga nit ki doo békki sa bopp xam nga sëñ bi. doo bëgg ci sa bopp ba pare di toog ak keneen di ci di ci kii sëñ bi loolu dafa doy waar loolu kenn du ko def ba tax gëwuma loolu moom macha allah waaw hmm. ci loolu ah. kon comme dañoo màggal waaw comme dañoo waaw dañoo màggal maas jot toog macha allah di gërëm maas di gërëm Seydina Azim di gërëm euh, mboolem site internet boo xam ne ñëw na fi di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu ñibbiwaat ci jàmm rek waaw bi pro moom macha allah ñoom moom xam nga moom laa yéen da am responsable gis ngeen li ngeen liggéey ci màggal gi ni mu rëy waaw loolu mooy yiw tey imaginer ngeen fii ne li ngeen dem di jël lépp da ngeen ñëw ngir ut si yiw waaw sëñ Tuubaa moo mel noonu sëñ Tuubaa moom fépp foo ko foo ko dàq rek da nga koo fekk te billaahi li tax ngeen màggal si lii di ngeen a bëri di ko sant yi di ko gërëm moom ngay màggal foofu quoi moom la sa xarit la naa loolu moom dafa far ba mu mais amul solo waaw benn benn lañ may far nga rek. amul problème lépp taw feex na jërëjëf bëgg naa ci yéen ñëpp macha allah di ñaanal yàlla jaajëf